mu jullit bi mbébét dana sotti insha allah suñu fexewul ba dox diggante ki gëm yàlla ak alquran mbébét mu mbébét dana sotti te dana jiite kaw suuf te kenn du ko mën a daal li may wax lu lu lu am solo la xam gi ko noonu islaam yi xam moo tax technique bu ñu man pexe bu ñu man dinañ ko def pour dox diggante nit ki ak alquran seytaane day ñëw pour def ay pexeem dina sàggan la pour dox sa diggante ak alquran yeneen leneen li ñuy jàng di ci gën a sonn ci alquran la télévision yi ca la téeméeri journaux juróom-ñaar nga bëgg leen lire par jour fooy ja lire alquran yooyu gis nga ay mbir la yoo xam ne soo saan la nit ñi duñ ko seetlu fekk yenn yi noonu lislaam yi ñoo ko tër ya ca des càggante bakkan la ya ca des seytaane moo koy def pour dox diggante nit ki ak téere bi waaye gis nga téere bi képp koo xam ni amut lu dox digganteem ak moom sunu borom bu ko defalee tawfiq ci dund gi ci boppam maanaam moom day nekk ab sang comme ni nga xamante ni la ko saxaaba yi nekkoon ci kaw suuf bi ñu doon dund kon téere bi téere bu mat a sonn la waaye téere bu mat a xam la téere bu mat a jàng la tamit comme niñ ko xamee ñu ngi nekkoon ci suratul kahfi ci aaya ñaar fukkeel ak benn wala ñaar fukkeel ak waa benn comme ñu ngi tàmbale ci aaya ñaar fukkeel ak ñaar sunu borom di wax ni subhanahu wa taala audu billahi alsamii alalim min alshaytan arrajim من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا لا يكون ما يكسن بنتي سنو برام سبحانه وتعالى تي sunu bind bi weesu ak ya ko jiitu xam ngeen ne ñu ngi nekkoon ci nettalib asxaabul kahf muy ñooñee nga xam ni ñoom la borom bi subhaanahu wa taala nattoo woon wala xéewalee woon boog seen ngëm yàlla ak seen pas-pas rawale ko laajoon leen ñu bàyyi seeni dëkk bàyyi seeni mbokk bàyyi seen alal nangootum rànk dugg ci àll bi lii la kenn ci borom xam-xam yi di wax ni firnde ndimbal bi leen suñu borom defal tegtal bu mag a ngoog buy wane ni képp koo xam ni dafa jub pour rawale pas-pasam bu dee ku gëm la ku dogu la ca la mu nekk suñu borom dana ko jàppale képp koo xamante ne dafa làqatu ci suñu borom sàkk mu làq ko su dee lu dëggu la ci moom suñu borom dana ko làq képp koo xam dafay sàkk ndimbal ci suñu borom te suñu borom rek la koy sàkk lu dëggu la ci xolam suñu borom dana ko dimbali loolu tegtal bi bokk na ci yi mu tegtaloo mooy qissab asxaabul kahfi gii kon asxaabul kahfi bi ñu jógee di daw ngir làqatu ngir rawale seen pas-pas ñaan nañ yàlla subhanahu wa taala sunu borom nangul na leen seen ñaan ñu nekk ca xuntuma diirab lan fa nekk borom bi subhanahu wa taala dinu nettali nag léegi wuute ak werante gi nga xam ne doomu aadama yi ñu ngi koy def ci asxaabul kahfi ñaata lan woon ak ban diir lan def ca xuntuma foofu seetlu bi ma ci njëkk a def mooy gis nga doomu aadama yi léeg-léeg li ëpp ci li leen amal njariñ duñ ci nekk di ca werante di ca sonn te li leen amalul njariñ rek la ñuy werante di ci sonn loolu moom ngi njëkk a seetlu ci bindab tay bi ndax damaa xam ni waa gaa yi juróom-ñaar lañ woon bu ñu juróom-ñaar juróom-ñett lañ woon ak gaa yi nu mu tuddati xaj ba lañ àndaloon moo leen juróom-ñaaral ak juróom-ñett yoon ñaar téeméer at lañ fa am kooku après léegi waaw buñ ko xamee lu mu ñuy jariñ kamiiru faayida di ca topp moo tax boo seetloo doomu aadama li ëpp ci la muy sonn di ca werante du lu koy jural njariñ waaye ku gëm yàlla mooy koo xam ne moom la muy sonn di ca werante di ca laaj di ca luñutu loolu après njariñ da cay topp boo seetloo borom bi subhanahu wa taala ci asxaabul kahfi seen xaj ba nu mu tuddoo nag daa weexoon ak daa xonq ak gaaya yére yi ñu soloon nu mu mel ak doomi buur lañ woon ak fii lam dëkk ak jan jamono lañ bokkoon ak yooyu yëpp boo seetloo borom bi subhanahu wa taala waxu ca waxu ca dara kenn ci borom xam-xam yi day wax ni li tax borom bi subhanahu wa taala waxu ci dara bokk na ci mooy après bu ñu ko waxee bu ñu ko waxut daanaka lépp loo xam ni boo ko xamee njariñ du ci topp jurut wax suñu borom day seet la nga xam ni ñun mën nañ cee jàng mu amal nu ay njariñ ñu wax loolu tamit fiqhun amiq képp kuy jàngale war nay seet tomb yi nga xam ni muy yi gën a am solo yoo xam ni bu ñu ko waxee nit ñi jariñoo ko moo gën di wax loo xamante ni amut njariñ te day bari lool suñu borom subhanahu wa taala mu ni sa yaquluuna gaa yi dinañ wax ni ci wuute gi ñuy wuute ak werante gi ñuy werante te gis ngeen sunu bind bi passé fi mu daane woon ci qaala alladina galabu ala amrihim lan taxidanna alayhim masjida foofu ma waxoon leen ni ñu bari dañuy faral di sukkandiku ci aaya jooju rawatina ñi nga xamante ni ñoo juuyoog ahlu sunnati wal jamaa fi lmanhaj dañuy wax ni manees naa def armeelu ñu baax wala bi yonent li nga xamante ni moom mooy jàkka waaye yonent yàlla bi lam ca wax rek doy na ci ba mu ko nettalee ni ko dañoo gisoon ci Éthiopie bi ñu gàddaayee ay bàmmeel yoo xam ni dañ koo soppi mu nekk jàkka dañu ulaika shiraaru lxalqi inda allah ñi gën a bon ci mbindeef yàlla yi fa yàlla mooy ñi nga xam ni ñoom dañuy jël ay armeel di ko defi jàkk dama jàpp ni su nekkoon te ni amul benn tegtal bu ñëw ci sunna bu dul bii xadiis rek day na ki nga xam ni moom gëm na yàlla gëmub yonenteem ki ne la kii mooy ki gën a bon ci kaw suuf moom bul ca bokk bul xam ko ca bokk jàkka su fekkee armel jàkka jaa war a toj armel su fekkee jàkka armel baa war a sulleeku jàkka yonent bi fa mu nekkoon ab armel ay armel la woon marbadu tamr la woon ay ay ñaari jirim ñoo ko moom waaye ay bàmmee la fa nekkoon waaye bañ fay def jàkka ji sunu yonent bi dafa digal saxaaba yi sulli leen armel yi ñu sulli yax ya dem suuli feneen ñu doog koy soppi mu nekk jàkka kon yooyu ñu xam ko beneen bi ci des moom mooy maanaam ñi nga xamante ni ñoom it dañooy séparer diggante jàkka ji ci biir lañ suul ar armel bi ci biir la nekk wala dafa nekk ci côté bi wala dafa nekk côté bi yooyu amul solo xam nga lu am solo ci jàkka ji la bokk wala bokk ci masala mi masala la moo xamante ni mata bàyyi xel lool léegi dañu am problème ci digg jàkka ji la nekk nekku ci digg jàkka ji mi ngi ci néeg bii nekku ci mi ngi ci néeg bële ma nga ca kanamu jàkka ja dama ni jataay yooyu amul solo xam nga lu am solo mooy armel yi ci jàkka ji la nekk wala néewul ci jàkka ji armée yi daa nekk nii jàkka ji nekk ne ak lu ñu jegeyoo jegeyoo maa daama bokkuñu rek su booba da nga naan armée ni jàkka ja kon jullee fa dara newu ci doonte am feneen a ko gën nag waaye bu nekkente ni armée bi ci jàkka ja la nekk buñ ne armée bi fu mu ne ñu ne ci biir jàkka ji ak fu mu ko mën a defee jàkka jooju daganu la jullee loolu mooy li gën a dëgër ci waxu borom xam-xam yi doonte am na leneen waaye loola gisuñ ni mooy li gën a dëgër kon masala moom féete wet suñu borom mu ni gars yi ñu ngi wax sa yaquluna ñu ngi wax salatatun waa asxaabul kahfi ñett lañ woon raabiahum ka leen juróomeel kalbuhum mooy seen xaj ba raabiahum ka leen ñeenteel jasakumullah xeyran kalbuhum mooy seen xaj ba wa yaquluuna am ñu ni xamsatun juróom lañ woon saadisuhum ka leen juróom benneel mooy kalbuhum mooy seen xaj ba waaye loolu lépp rajmam mi ngi tege ci dàkk rek bil xay bi ci wax ci kumpa tand li mooy tand rajman bil gayb mooy tanda tandaatu di tanda di wax loolu lay tekki ak rajmu bil gayb mooy koo xam day tanda di wax rek li muy wax moom ñaata baaraam laa da nga ne est ce que du jot est ce que du ñeent di tand yi wax kon sa yaquluuna ñi ngi wax naan talaatatun ñett lañ raabi'uhum ka leen juróomeel kalbuhum mooy xaj ba ka leen ñeenteel bokk wa yaquluuna am ñu ni xamsatun juróom lañ saadisuhum ka leen juróom benneel kalbuhum mooy xaj ba waaye rajman bil gayb loolu dañ koy teg ci dàkk rek waaye tandaatu rek waaye nekkut lu wér wa yaquluuna am ñu ni sabaatun juróom ñaari nit lañ woon wa saaminuhum kaleen juróom ñetteel kalbuhum mooy xaj ba léegi fii am na ay sew-sewi njàngale alquran yu yu rafet yu ci nekk wa kullu ma fi ibarat alqurani jamila alquran léppam lépp ay ibaaratam dafa rafet dafa neex balaaga ak bayaan ci alquran la fekk baax borom bi subhanahu wa taala dani gaa yi nee na ñett lañ xaj baa leen ñeenteel am ñu ne déedéet ñeen juróom lañ xaj baa leen juróom benneel am na ñu ne juróom benn lañ ah juróom ñaar lañ xaj baa leen juróom ñetteel soo seetloo borom bi dafa jëkk tudd ñaar daal ni rajman bil gayb kon moo lay wan yooyu moom bokkutut moom génne ko salaatatun raabi'uhum kalbuhum wa yaquluuna xamsatun saadisuhum kalbuhum mu ni rajman bil gayb kon yooyu sib insaan ni kon nee na la rajman bil gayb rek yooyu mu bokkatul moom loolu dafa bokk ci balaaga alquran maanaam li mu xës ba ni lii rajman bil gayb rek yow génneel yow boobu bokkatul léegi mu ni wa yaquluuna sabaatun wa saaminuhum kalbuhum ba pare waxul rajman bil gayb ça veut dire que kon loolu mooy li wér parce que su fekkante ni wér comme yu njëkk ya dafay wax rajman bil gayb wala mu wax leneen lu nuróog moom luy waneen lii bokk ci kooku benn la kon li gën a wér mooy sabaatun juróom-ñaari jeune lañ woon wa saaminuhum ki leen juróom-ñetteel kalbuhum mooy xaj ba waaye xoolal foofu tamit sabaatun wala dani salaasatun waxul wa raabi'uhum de xamsatun waxul wa saadisuhum waaye sabaatun mu ni wa saaminuhum dugal waaw waaw foofu gis nga waaw ji xam nga lu muy tekk min adabil Qur'an ci teggini Alquran lay wane. parce que wax dëgg yàlla xaj bi am na cër jox nañ ko orma wax dëgg yàlla bokk na ci mbooloo mi nag tamit waaye nag bokkut ci nit ñi bokkut ci nit ñi moo tax waaw ji ci moom dafay séparer diggante nit ñi xaj bi kenn ci borom xam-xam yi mu ngi lii dafay wane ci tegginu alquran wane ni yi bokk lañ war a boole waaye yi bokkut nañ leen séparer sabaatun juróom-ñaar lañu wa saaminuhum te leen juróom-ñetteel nag mooy xaj ba ñu dugal waaw foofu te mu dee yeneen yi ci des yëpp kenn dugalul waaw parce que juróom-ñett ak juróom-ñaar juróom-ñett yooyu ay nit lañ ñoom kese lii nag Ibn Kathir day wax ni ci laaya ji ak ya ko jiitu day wax ni lii day war ni fadilatu soxbati al axyaar maanaam ànd ak ñu baax bokk na ci njëriñ li mu am moom mooy ñoom dañ lay yóbbaale xam ngeen ni wér na ci sunna yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam daf nii aw nit duñu dajaloo ci ab néeg ci néegu yàlla yi di yàlla yi di jàng alquran muy jàkk wala di ko jàngalante wala di sàkku xam-xam lu dul yàlla day wàcc ci ñoom sakina wàcc ci ñoom yërmande malaaka yi yiir leen suñu borom bind leen ne fa ne ca ñoom ah suñu borom sax am na ci riwaay da leen di laaj waaw ñoom luñ gën a bëgg ñu ne ah ñoom de àjjana lañ gën a bëgg suñu borom ndax gis nañ àjjana malaaka mi ne ko déedéet ñoom de gisuñu àjjana dañ koo dégg rek gëm ko rek suñu borom ni ah ñun gisuñu àjjana dégg ko bëgg ko rek daal di fay di góorgóorloo nii suñu borom mu ni kon de nañ nee leen ni may naa leen àjjana yal na yàlla defal nu loolu yal na suñu borom defal nu loolu suñu borom wallahi bunt yi nu ubbal pour ñu ubbil pour ñu texe dafa bari trop yërmande ji dafa bari lool waaw ñoom luñ gën a tiit mu ni ko sawara ñoom est-ce que gis nañ sawara ba di ko tiit ne déedéet ñoom kat dañoo dégg riiram sawara ma rek tiitaange jàpp leen ñu di ko moytandiku mu ne nee leen musal naa leen ci sawara kon yal na yàlla musal ñu ci sawara malaaka mu ne ko am na koo xam ne moom bokku ci moom moom da doon jàll rek moom mbir ma sax nekkul woon yitteem da doon jàll rek gis gaa yi toog mu toog di intéressé wu suñu borom ñu ko boole naa ko ca ñu ne ko moom jotaay ba taxu ko woon a jub xool lu wax ulaika al qawmu la yashqa jalisuhu gaa yi yàlla yaa ngoog ku nar a texee di doo mën a toog ak ñoom xoolal xoolal xoolal fadila boobu xoolal ab xaj ab xaj ab xaj rek nga xam ne nit ki def def ci moom jëf ju baax sax mën a taxataat bi àjjana gis ngeen ndaw sa doon leel xaj ba wala mu koy nandal ndox te fekk dafa njaara jon bay doog a dëpp suñu borom tàbbal ko àjjana ca loola bi rahmatihi alwasia loolu tekkiwul mooy kaay leen mooy yàlla waaye kenn xamul gën jëf la yàlla ay nangul moo tax Abdullah ibn Umar dafa wax su ma xamoon ne yàlla nangul na ma ñaari ràkk rek man fi ne pare naa pour dee dem ndax xam naa ne innama yataqabbalu allahu min almuttaqin kon wa yaquluna danañ wax sabaatun juróom-ñaar lañ wa thaaminuhum seen keneen juróom-ñetteel kalbuhum mooy xaj ba qul wax leen ni leen rabbi sama borom yàlla aalamu moo gën a xam bi iddatihim bi iddatihim ci seen ab lim ñaata lañ woon suñu borom moo ko gën a xam am na ci borom xam-xam yi ñu ne même nekkul woon juróom-ñett nekkul woon juróom-ñaar juróom-ñetteel bi di xaj ba ñu ne leen li seen tegtal ñu ne yàlla dafa lim leen ne rajman bil xayb kon mooy bokkatul waaye bi mu limee sabaatun wa taaminuhum kalbuhum waxul li mooy dëgg waxul da caa noppi rek jàll daal ni qul rabbi aalam bi iddatihim waaye loolu gën a dëgër li gën a dëgër mooy li borom xam-xam yu bari wax ko mel ibni kathir ñoom ibni jarir ñoom ak ñeneen ñu dit ñoom mooy borom bi subhanahu wa taala dani yéle mu lim mu ni rajman bil xayb kon bokkatut bi mu lim mu noppi te bu amoon sikk kon dana leeral sikk sa comme nag na mu ko leeralee ci ay moroomam waaye da ko bëgg xamal ni saxal gi suñu borom saxal ni juróom-ñett lañ woon juróom-ñaar lañ woon keneen juróom-ñetteel mooy xaj ba qul nee leen rabbi sama borom yàlla aalamu moo gën a xam bi iddatihim ci seen ab lim maa yaalamuhum xamu leen illa qalil lu dul lim bu néew allahu akbar abdullah ibn abbas bu doon tafsir ba yegg si ci aaya ji day yëkkati loxo mu ne ana min al qalil man ci ñu tuuti ñooñu xam laa bokk loolu nag bokkul ci rëy rëy li wala wane wanewul déet day bokk ci lim xéewal yi la yàlla defal subhanahu wa taala loolu mën naa nekk mën naa nekk yonent yàlla daana ko def sallallahu alayhi wa sallam ana sayyidu waladi adam wala faxr wa awwalu man tanshaqu al ard wala faxr wax ay wax yu bari man maay ki gën ci doomi aadama yi tiitar taxul ma di ko wax bu àllaaxira man la bàmmeel di njëkk a xar ma génn suuf si maay te tiitar taxul ma di ko wax mën naa yor li wàllu xam ne yowm alqiyamati tiitar taxul ma di ko wax waaye da dugg ci moo tax alxaafid ibnu xajar ci fatxul baari day wax ni su fekkee nit ki yëg na lu ko yàlla defal te ba mu koy lim tiitaru taxut ak wanewu waaye da koy wax ngir santee ko suñu borom mu ni su loo ba waa loola dagan na moo tax ibni abbas baxrul umma wa turjumaan alquran da doon wax ne man de bokk naa ci ñu tuuti ñooñu xam nga yàlla dañu li ko xam ñi xam lim bi ñu tuuti lañ ñu duñ ñu ko yàlla xamal mu ne ñooña ko yàlla xamal ñu tuuti ñooña man ca laa bokk man ca laa bokk te loolu nag sunu borom soo tala day maye xam ngeen dina ñëw ci kanam tuuti ci xissab Moussa Xadir ci saar wi nga xam ne bokk na ci xisas yi nga xam ni am na solo trop ci xisasul Qur'an gis ngeen xam-xamu sunu borom ak xam-xamu jaam yépp boo leen boolee gam-gam léegi mi ngi mel ni géej gi ak benn toq bi nga xam ne moom la ca picc ba naan yëkkati toq bi nga xam ne moom la nit picc bi naan loolu mooy xam-xamu doomu aadama yi yépp la des ca géej ga ñaata litre la ñaata milliards yi tani ba tey laa moom la yàllaa ko xam loola mooy xam-xamu yàlla subhanahu wa taala moo tax suñu borom mu ni wa ma utiitum min al ilm illa qalila allahu akbar yàlla mu ni joxuma leen ci xam-xam lu dul lu tuuti léegi xoolal tuut jooju moom la yàlla jël fellaat ko ku nekk mu mosal la ca moo tax boo gisee nit mu am xam-xam ba nga yéemu ci moom da nga xamul dara rek koo xamul dara yàlla rek mooy ko xam subhanahu wa taala ndax doomu aadama yëpp la yàlla boole damir ji maa utiitum min al ilmi illa qalila joxuma leen ci xam-xam lu dul lu tuuti léegi tuut jooju moom leen jël fellaat ci masamba am ci fell su sew ruuj am keneen ku ci am fell su xaw a tane am ko ca kon ki nga yéemu naan borom xam-xam la moom daa bokk ci ñu am ci fell yu tane yi rek waaye ñëpp ci tuut ci tuut ji lañ am kon wallahu yaalam wa antum la taalamuun yàlla rek mooy ki xam nit ñi xamuñu suñu borom ni maa yaalamuhum xamu leen seen ab lim illa qalilun lu dul lu néew ci jaam ñi Abdullah ibn Abbas mu ni moom ca la ko ca la bokk falaa tumaari fihim suñu borom mu wax yonent bi ni ko falaa tumaari fihim bul weranteeg ñoom ci asxaabul kahfi illa miraan lu dul werante goo xam ne zahiran dafa tege ci lu leer bu fekkee werante ak waxante ay baat donte werante sax islam moom da koy tere al mira wal jidaalu fi diin dañ ko tere dàggante la islam bëgg mooy firndeente ak waxante ay lay kenn ku ci nekk indi lëm leer la ci ay lay sunu borom subhanahu wa taala mu ni illa miraa zahira lu dul werante wala dàggante boo xam dafay tege ci ay lay yu leer mu ni wala tastafti bul sàkkoo ubbee mooy bul laaj fiihim ci mbirum asxaabul kahfi minhum kenn ca ñoom ahadan minhum ca ñoom ahadan kenn maanaam loolu mooy ñooñu nga xam ne ñooy yahuud yi ak nasaara yeeg ñeneen ñi kenn bu ko laajate dara ci mbirum asxaabul kahf ndax ñoom xamuñ ca lii nag li ko waral mooy xam ngeen ni asxaabul kahf yahuud yi ak yéefar yi wala chrétiens yeeg yéefar yi dañoo compalé woon bi ñu compalé woo daal di yebal ñett nit ñi nañ dem ci yonent bi laaj ko ñetti laaj kan lañ xam mooy koo xam ne wër wër na àddina kookoy zul qarnayni dina ñëw ci kaw dina ñëw ci saar bi ñan ñooy mbooloo ma génnoon te seeni xabaar naax saay ñoo ñooy asxaabul kahfi ak lan la ñuy wax ci mbiram ruux te loolu dina ñëw ci saar bi ñett yi moo tax saar bi wàcc bi ñu ko laajee yahudi ni leen bu ngeen laajee yonent boobu ñetti laaj yii su ko tontoon na ngeen xam ni li muy wax dëgg la yàllaa ko yónni waaye su ko tontu wut nag na ngeen xam ni kii daal sa waay day waxantu nii rek léegi kon yonent bi alayhi salaam bi wu wuute gi amee ñenn ci jullit ñi di déglu ñi nga xamante nii ñoom ñooy ñi ñu bokkalul diine kii naan juróom lañ kii naan ñett lañ kii naan ñeent lañ suñu borom ni wala tastafti fihim minhum ahada mbirum asxaabul kahf moom bul ca laajati ci ñoom kenn lenn al allaamatu cheikh nasir assaadi dafa wax ci aaya ji wax ju am solo mu ni wala tastafti fihim minhum ahadan mënees na cee déggee ni kon am masala ci boppam soo xamee ni diw sàngam mii boo ko ko laajee du ko xam du dagan nga laaj ko kooku benn la beneen bi ci des mooy masala sàngam lën dul laaj diw parce que dañoo xam ni jekkuwu ko waaye masala sàngam mi mën nañ ko ko laaj loolu mën naa nekk am na ko ñoo koo xamante ni masala sàngam mii la gën a jekk te loolu doon ci borom xam-xam yi masala mii la gën a jekku ñu laaj ko ca masala mooma am na masala mali moom gënu koo jekk mu ni soo wéroo ko ko sax a laaj faf ndax amaana seytaane biiw ko sax moom it ba mu wax lu mu xamul donte bu xamul dafa war a wax xaw ma kon wala tastafti fihim mu ni bul laaj ci mbirum asxaabul kahfi minhum ci ñoom ahadan kenn maanaam bul ci laajati kenn ci li nga xamante ni mooy mbirum asxaabul kahfi ndax suñu borom wax na la lam la ci wax parce que loolaa yi leer mooy juróom-ñaar lañ woon juróom-ñett la mooy xaj na amaa neefa naan juróom-ñett lañ woon ñu amoon nangam ci ay at ak yére yu mel nii lañ solo nag xaj la xumraan la tuddoo nag yooyu amul solo li am solo rek mooy suñu borom wax nañu ko suñu borom mu ni yonent bi wala taqulanna bul wax li shay'in ci menn mbir inni man kat faailun dalika gadan fas yéene naa koo def suba illa an yasha allah lu dul da ngaa wax bu soobee yàlla loolu la aaya ji teg illa an yasha allah mooy da ngaa wax bu soobee yàlla gars yi dañoo ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam laaj ko ci mbiram asxaabul kahfi yonente bi ni leen dem leen ba suba ngeen ñëw ma tontu leen te waxut insha allah déglul bu baax xool yonente yàlla bi alayhi salatu ak ni ko yàlla ormaale subhanahu wa taala dem leen ba suba ngeen ñëw ma tontu leen gaa yi dem di xaar suba ca suba sa affaire bi ni kakk jibril ñëwut yonent bi toog 15 jours fukki fan ak juróom jibril ñëwut mu am ci njàqare aku tiis aku mettit ak réccu loo xam ni allahu bihi alim allahu akbar waxoo insha allah waxoo insha allah loolu rek la yàlla yare yonent bi ak yonent bi fi mu egg suñu borom fa kay fa ka ñun kon bul waxati suba dinaa def nangam wala fas yéene def nangam lu dul da ngaa wax insha allah gars yi naan ah yéen di seen waa ji moom jaaxal nañ moom de suba la ñu waxoon kay de wàññi nañ ba am fukki fan ak juróom te moom ba léegi waxagul dara yéen tamit am na lu ko métti parce que moo juum moo tax insha allah lu am solo la lépp lu jullit bi def na yëg min mashiatillahi subhana léegi nag dañ la ñaawale insha allah insha allah léegi buñ la koy ñaawale bu ko bu faay loolu léegi da ngay gis ñun dañuy am complexe sax di ko faral di wax lu bari parce que nit ñi société bi dañu koy ñaawale yow man nga lu ñu wax rek nga ni insha allah ah yow boo defut lu ñu wax nga ni insha allah looy def leneen leneen looy def da nga am leneen looy def moo tax ñàkk wax insha allah ci moom dafa bokk ci wóorut moo tax suñu borom mu ni ko wala taqulanna bul wax li shay'in ci benn mbir inni ban kat faailun dalika dinaa def loola gadan suba illa an yasha allah lu dul da ngaa wax bu soobee yàlla su ko defee ba mu demee ba fukki fan ak juróom ya mat ba passé nag sunu borom doog a wàcc aaya ji yedd ko ca ni ko lu tax waxoo bu soobee yàlla yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam dafa toog ba mu yàgg mu ni tey jii de dinaa sëyeeg juróom-ñaar fukki soxna xam nga ku bari woon ay soxna la gis nga ñi nga xam ne ñoom lañ bokkalul diine ñoom buñ ñuy wax naan ñu yéen seen takkum soxna mi daa bareeg seen diine ko nangoo sunu diine nanguwu ko da nga leen di tontu nga ni leen ñoom Suleymaan ci yonent yi yi ñuy boole ci seeni yonent la bokk te Suleymaan junniy jabar la amoon Suleymaan amoon na juróom-ñaar téeméeri jabari gor ñetti téeméeri jabari gor ak juróom-ñaar téeméeri jaam muy junni yaakaar naa kooku ëpp yonent bi alayhi salaatu wasalaam kooku moom moo moo Anas ibni Malik laay faral di wax Suleymaan mi amoon junniy jabar mook Anas ibni Malik mu amoon téeméeri doom ak lu topp bu leen waa UNICEF fekkee woon dañuy di posé na ñu dee ah waaw ñoom loolu daf lañ bañ kat donc yu bari jabar yu bari lañ bañ dañ ñooy posé na nga dee dañ ñooy posé na nga dee Souleymane amoon na junniy jabar mu ne tey dinaa tànn benn riwaay dana juróom-ñaar fukk benn bi ni juróom ñett fukk benn bi ni téeméer téeméer bee gën a dëgër mu ne dinaa ànd ak téeméeri soxna yépp ci guddi gi ci benn guddi loolu est-ce que góor mën na ko waaw waaw yonent mën na ko yonent ab yonent yàlla daf koy jox kattanu quarante personnes soo tànnoon ñeent fukki nit yu am doole seen doole yépp yàlla da koy boole jox ko benn yonent mu ne dana ànd ak téeméeri soxnaam yépp ci benn guddi te ku nekk am doom doom ja mu def ko mu nekk mujahid muy xeex fi sabilillah am benn riwaaya malaaka bi sax fàttali na ko ni ko waxal insha allah mu fàtte koo wax waxu ko gis nga de mu ànd ak téeméeri soxna yépp ci génn guddi loolu mu ab yonente ko man keneen ko dul yonente mënoo ko loolu góor gu ko gu guy jéem jox doon da ngay dee sax léegi après Suleymaan alayhi salaam soxna yépp kenn amu ca doom kenn rek a ca am doom te genn wàllu nit la jur loolu mooy wa laqad fatanna Suleymaan wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anaab loolu mooy li ci gën a wér donte dana ñëw insha allah ci bind ya ca kanam a kanam wuuteeg wax ya nga xam moom la ci yenn ci mufassirun yi wax kon loolu la yonent yàlla bi mu ne gis nga bu waxoon insha allah soxna yi yëpp yàlla dana dogal dinañ am doom te kenn ko ci nekk dina jur mujaahid buy xeex fi sabilillah kon wax insha allah lu am solo la moo tax mu ne yedd ko ni ko wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha allah bu dul da ngaa wax bu soobee yàlla wazkur rabbak na nga tudd sa borom yàlla ida nasiita soo fàttee wax insha allah foofu nag borom xam-xam yi dañ ci am ñaari wax donte benn bee gën a dëgër benn bi mooy waskur rabbaka na nga wax insha allah isa nasita soo ko fàttee maanaam boo ni woon tey ma def nangam même bu di dëggaa giñ bu la ca kafaara bañee fekk saa boo ko fàttali ko rek neen insha allah mu jeex am na ñu ko tekkee noonu boobu gën a dëgër am na ñu ne waskur rabbaka na nga fàttali ko yàlla mooy su fekkee da ngaa wax benn mbir te waxoo insha allah nga dem ba mu yàgg sa xel dem ci na nga fàttaliku yàlla ndax fàttaliku googu day waral maanaam bind bu mel noonu bañ laa dalaat parce que shaytaan day tax nit di fàtte te dina ñëw ci kanam wa ma ansaani illa shaytaan ci diggante Yusha ibn Nun ak Musa alayhi salaam kon wazkur rabbaka li muy tekk mooy na nga fàttaliku sa borom parce que fàttaliku yàlla day tax doomu aadama ji maanaam shaytaan du ko mën a nopp xam ngeen min sharril waswaasil xannaas shaytaan day ñëw daal di jonkan fii ci sa dënd bi ci sa xol bi gis nga booy tudd yàlla. da ngay mel ni ku koy jam ay bal du mën a génn xannaas xannaasa mooy làqatu na fala uqsim bil xunnas al jawaar al kunnas day làqatu waaye saa boo ñàkkee fàttaliku yàlla gis nga bu nee tëll ci sa kaw bu lay dóor ngay daal moo tax ñàkk fàttaliku yàlla subhanahu wa taala gënut moo tax am na ñuy wax ne Abdullah ibn Abbas moom danañ wax ni aaya ji li muy tekki mooy wazkur rabbaka iza nasit mooy fàttalikul yàlla saa waxal insha allah saa boo ko fàttalikoo Abu Hanifa mu ne déedéet ànduma ci boobu de mu ne ànduma ci boobu ñu ne ko li tax àndoo ci mu ne daa wér Abu Jaafar al-Mansour daal di koy yëg daal di koy woolu Abu Jaafar al-Mansour moo nekkoon amirul muminin jamono jooju xam ngeen Abu Hanifa imam ju mag la woon ci jamonoom moo njëkk a feeñ ci ayima yi ñu xam Malik Shafii ak Ahmad di ko Abu Jaafar al-Mansour wooloo ni ko waaw yow dégg naa ne yaay wuuteeg Abdullah ibn Abbas ci wax ji ñu koy waxal ni maanaam nit bu waxul insha allah saa bu ko fàttali ko mënu ko wax mu ne ko waaw waaw mu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne ko ah buntu boobu de saa buñ ko tuddee lu bari dana yàqu mu ne ko Abu Jaafar al-Mansuur ni ko man li ma ànd mooy insha allah ku ko fàtte saa boo ko fàttali ko rek wax ko mu jeex même boo giñee sax boo giñoon naa def nangam boo toogee ba mu yàgg nga fàttali ko ne waxuma woon insha allah nga ne axaar insha allah kon soo defut loola kafaara du la ci fekk Abu Hanifa ne ko bismillah waaye bu ñu ko defee du baax ci yow de mu ne ko lu tax du baax ci man mu ne ko xam nga seen jamono ñoom tolloon na jamono joo xam pour nga xam ni kii nangu na imaara gi kii nanguwu ko yooyu jaxas-jaxas yi amoon bokkut ak jamono Omar Aboubacar ak ñoom seen léegi da ngay waaj ni ko gimal ni ànd naa ci fal gi mu gin ci yàlla ni ànd naa ci fal gi ñu daal di koy bàyyi mu dem Abu Hanifa ni ko comme bu demee noonu koo woote bu ginee ni ànd na ci fal gi bu génne danaan insha allah rek jeex na même bu ci àndu doom benn bàkkaar comment comprendre ngeen wax ji wala déet Abu Jaafar Mansour ni ko wax nga dëgg de wax nga dëgg de waa demal kon gis nga masala la moo xamante ni waxuma ne sax Abu Hanifa moom moom yooyu nekkulul yitteem waaye ka nga xam ne nekk amirul muminin xam na ni moom lii Abu Hanifa wax moo gën a dëgër ci moom ndax Abu Hanifa ku ñoroon la ku ñor ku ñor xom benn bis mas naa dajeeg aw nit ci mbooloom waa dëkkam ñoo xam ne dañuy wax ne yàlla amut yàlla amut lépp dafa jekki-jekki rek par hasard la amee ñu woo Abu Hanifa débat ak ñoom xam nga bu doon ñu ne da nga fay nekk di indi ay aaya ki xadis ñoom yow ku gëmut ni yàlla am nooy gëmee ay aaya ki xadis Abu Hanifa ni leen léegi débat bi nañ ko fomb ba suba su doon misaal fii ngeen nekk ñu ne nañ ko defee ginnaaw lag bi te lag bi booy jéggi da ngaa war a jaar ci gaal ñu war a heure sàngam su doon trois heures ci misaal gars yi ñëw trois heures Abu Hanifa tardé ba cinq heures jot mu ñëw gars yi ne ko waaw yow yéen lii leen seen diine jàngal yow yaa ngi nii nga faussé rendez-vous wax wax ay wax ba àggal Abu Hanifa ne man kat damaa ñëw ba ci pegg lag bi ma taxaw di xaar garab gu gor boppam dem fee yett boppam gaal ñëw taxaw ni ma kaay war ma yéeg ci kawam mu indi ma ci yéen loolu laa doon xaar te gisuma ko moo tax ma tardé gars yi ne ko yow da ngaa dof xanaa mas ngaa gis garab boo xam ne mooy gor boppam ah yett boppam defar boppam gaal ñëw yéegal la nga dem loolu mës nga koo gis mu ne ñu mës ngeen a gis asamaan su yett boppam suuf yett boppam nit ñi nekk ci diggante bi mës ngeen a gis loolu fa ufximu gars yi daal di dem mu jeex masala ma jeex amul sax wax ju dem te leen loolu moo leen dëpploo parce que loolu mënta nekk faw rek am na ko ko fi def huwa allahu alwaxidu al ahad kooku mooy yàlla subhanahu wa taala kon borom bi subhanahu wa taala mu ni bul wax dinaa def nangam lu dul da nga ni bu soobee yàlla wadkur rabbaka na nga fàttaliku yàlla ida nasiita su fekkee da nga koo fàtte ñun nag lu bari daf ñuy dal lu bari dañuy wax ay wax yu bare bari ndeysaan suba dina te léegi ne waxuma leen sax ay waxi insha allah waaye yow yow ku la wax sax suba dina la fekk wala déet gis nga ñun dañoo dëgër fit lool da gis koo xam ni bu subaa lii daa war a def ginnaaw suba d'accord julit am na sañ-sañu programme waaye lépp mu tege bi mashiatillahi subhana suba dinaa def nangam ginnaaw suba bu soobee yàlla ah bu dee neex na yàlla bu fekkee neex na yàlla subhanahu wa taala am na genn góor gu ñu dëkkaloon gu baax ndeysaan ci li ñu xam ci moom moom de loo wax ba yegg rek ma ne ah xanaa bu dee neex na yàlla yàlla de bu ko neexut moom du am te jàngut sax jàngut waaye kaddu googu dafa bokk ci kaddu yi ma gën a bari lu may dégg mu di ko wax ah bu dee soob na yàlla sa xaalis bi de bu bëggee ma lekk ci te yàlla dogalu ma lekk soon du ma ci lekk ñu ne koy waxee nga xam ni kon maanaam mashiatullahi maanaam sañ-sañu suñu borom ci ay def def wa ma tashauna illa an yasha allahu rabbul alamin nit ki du bëgg mu sotti lu dul borom bi subhanahu wa taala moom moo ko sottal suñu borom mu ni ko waqul na nga wax asa aman na an yahdiyani rabbi sama borom gindi ma li aqraba min hada lu gën a jege ci lii rashadan ak njub bi maanaa li mu bëgg a wax rek mooy amaana yàlla dana ma gindi ci masala mii nga xamante ni moom lan ma doon laaj da ngay wax insha allahu ba noppi boo ko fàttee nga fàttaliku yàlla ba noppi nga ñaan yàlla yàlla gindi la te loolu tegtal la buy wane ni kon nit ki bu amee jaaxle ci mbir day ñaan yàlla gindi ko wa qul asa rabbi an yahdin an yahdini rabbi li aqra min hada rachada yàlla gindi la comme rachad rushd gi nga xam moom la asxaabul kahfi tamit doon ñaan kon mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala mu ni kon bul wax benn mbir lu dul da ngaa wax insha allah waaye soo fàttee wax insha allah na nga fàttaliku yàlla parce que seytaane pexe yi muy pexeel doomu aadama daf koy fàtteloo wax loo insha allah léeg-léeg nga dégg ni di téléphone waaw maa ngi léegi léegi amul benn problème wax a wax a wax tarara dama yeggal te déggoo mu wax insha allah ndeysaan xamoo ndax da nga accidenté nga dee xamoo ndax di nga fa yegg yàlla rek mooy ki gën a xam moo tax ku gëm yàlla moom lépp lu mu wax rek li caa war a teg bu fekkee soob na sunu borom subhanahu wa taala insha allah maanaam insha allah mooy bu dee soob na yàlla subhanahu wa taala moo tax benn jigéen bi mu déggee aaya ji ñu naan am nañu wax ne insha allah fu la neexee nga wax ko mu ni ah bu doon loolu la kon kay ayuba wërta woon a kafar xam nga ayuba soxna si daa génn dem di wuti lu mu ko dundalee te xisab ayub xisab bu am solo la boo xam ne war nañ koy waxal suñuy soxna gore gore ayuba dafa amoon alal am ay doom nekk ab yonent yàlla may ko nit ñi ñëw këram këram nekk gaaram place bi mu xëy xëy yàlla natt ko alal jur ga dee alal ga jeex ah gars yi intérêt yi nag gars yi intérêt yi yëpp ndeysaan téye seen i tànk doo gisate kenn këram feebar bu metti donte demeewul ni ko nit ñi waxe ne ay sax da ko doon doxal déedéet dafa bokk ci ahlu sunnati wal jamaa liñ am fas-fas ci yonent yàlla mooy yenn feebar yu mel ni sax yu demee góom yuy xeeñ di sonalaate gaana yooyu yàlla du ko teg ab yonent silmaxa yu def déer yàlla du ko teg yooyu yu mel noonu yàlla du ko teg yonent loolu dafa bokk ci fas ahlu sunna wal jamaa ñëpp daw kawam des ab soxnaam allahu akbar soxna si rek moo fi des am ngor muy metti muy muñ parce que ba muy neex maa ngi fi woon ak am solo ak am solo yàlla def subhanahu wa taala soxna si dem di wuti lu mu lekk far yàgg fa mu mer jàpp ni soxna si da koo jàmm comme yépp mu giñ ci yàlla ne gis nga kii bu ñëwee dinaa ko dóor téeméeri yar soxna si dellu si waat sunu borom ni ko xud dixtan fadrib bihi wala taxnas léegi jëlal bant bale bant bale bant bale bant bale ba muy téeméer nga def ko dank ni ko ko tay muy téeméeri yar mu jeex xoolal ni mu simple te neex rek mu ne bu fekkonte ni ayuba daal giñoon ni dina ko dóor kon dina ko dóor wala mu ko faara mu ne su fekkonte ni kon wax insha allah saa su la neexee yomb na kon ba mu demee ba dara desul dana ayuba danaan kon insha allah rek mu jeex mu ni maadaama waxul insha allah mu jeex moo lay wan ni kon masala moom wérut ndaw soosu de ku dégg fiq la moom suñu borom subhanahu wa taala mu ni nag léegi wala bisu gaa yi sax sax nañ fii kahfihim ca seen xuntuma salaata miatin sinina maanaam ñetti téeméeri at wasdaadu tisaan ñu yokk ca juróom-ñeent wala bisu sax nañ fii kahfihim ca seen xuntuma salaata miatin sinina ñetti téeméeri at wasdaadu tisaan ñu yokk ca juróom-ñeent mu ne xanaa suñu borom mënoon na ni ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent rek mu jeex am nañ fa ñetti téeméeri at wa gis nga de lu ma waxoon ci waaw ji sànq dafay séparé waaw ji dafa doon séparé wasdaadu tisaan yokk nañ ca juróom-ñeent xanaa ñëwoon ne am nañ fa ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent moo gën a simple te gën a yomb beneen sew-sew bu am solo ngi foofu boo xam ne ci day wane maanaam xam-xamu alquran ni mu wasaarook ni mu yaatoo ak lépp lu jullit bi soxla mi ngi ci biir alquran asxaabul kahfi ñi nga xam ne ñoom ñooy ahlul kitab ñoom ñoo wax jullit ñi ni leen labisu salaasa miatin sinin ñetti téeméeri at kese lañ fa am alquran dikk ne déedéet ñetti téeméeri at yu teg juróom-ñeent moo tax borom xam-xam yi di wax ni kon lii day wane ni alquran mi ngi bàyyi ko ci yàlla subhanahu wa taala parce que différence bii ñu war a wax sew sew bii ahlul kitaab dinañ ci xamee ni yonent boo xam ni mënta bind mënta calcul yooyu yëpp moom te moo ko waxal wax yonent sax turam Muhammad sax mënu ko woon a bind alayhi salaatu wasalaam te xool kiimtaan gi mu nekk wasdaadu ci sax ñu yokk ci juróom-ñeent loolu li ko waral mooy wàññi bii ñii dañoo wàññi ci suhuru shamsiya alquran di wàññi ci suhurul qamariya te ñaar yëpp nag suñuy suñuy weer la nag suñuy at la léeg-léeg sama classe de gars yi dañuy faral di juum da ngay dégg ku ñu atum yéefar mille neuf cent nangam nan deux mille nangam da ngay ñëw atum yéefar du atum yéefar de déedéet yéefar yi ñun dañ koo féetewoo waaye ñun ñoo moom bii ñoo moom bee loolu tamit lu sew sew bu mat a bàyyi xel la mille neuf cent nangam deux mille nangam atum yéefar déedéet atum jullit la atum jullit la ñaari at yépp ñun ñoo ko moom dafa fekk ni ñun Umar ibn al-Khattab moom moo tànnoon hijriye bii ñu féete woo ko waaye bële tamit ñoo ko moom buñ ca wàññee deful dara lu aay kooku benn la beneen bi ci des mooy gis nga diggante wàññi bu bàyyi koo ci jant bi ak ci weer bi ci la différence ab wasdaadu tisaan génn jëlal assuhur assuhur ay sanawaat alchamsiya wàññi bi nga xam ni par at la wala par weer te dañ koy natt ci jant bi mooy calendrier xam nga grégorien bi bii nga xamante ni moom la yéefar yi yore te ñu suñu suñu suñu bos la boo xoolee at mi borom xam-xam yi joxe ni trois cent soixante cinq jours moo ci nekk defe naa loolu ñun ñëpp xam nañ ko gis nga at mi trois cent soixante cinq jours muy ñetti téeméeri bis ak juróom-benn fukk ak juróom ci ay bis moo ci nekk gis nga loolu borom xam-xam yi ñu ne dañ ciy yokk cinq heures de temps pour at mi mat da ngay jël trois cent soixante cinq jours dolli ci cinq heures de temps muy juróomi waxtu soo paree nga dolli ci quarante huit minutes soo paree nga dolli ci quarante six secondes at mi doog a jeex trois cent soixante cinq jours boo ci dollee cinq heures de temps dolli ci quarante huit minutes dolli ci quarante six secondes at benn at dem na gis nga loolu boo ko calculé jant bi borom xam-xam yi am nañu wax ni ci asamaanu benneel bi ci asamaanu ñeenteel bi la nekk am nañu wax loolu moom day wër boppam nag lay wër moom benn place la nekk wa shams tajri li mustaqarrin laha mustaqar ba ca la nekk moom jant bi léegi day wër boppam nii lay def rek maanaam comme fii ma toog nii rek muy wër boppam gis nga borom xam-xam yi ñu ne maanaam bu tàmbalee di wër dafa am ay manazil ah wal qamara qaddarnaahu manazila xatta aada kal urjun al qadim boo demee ci suratu yunus sunu borom mu ni huwa alladi jaala alchamsa diyaan wal qamara nuwan wa qaddarahu manazila taalamu adada alsinina wal xisaab pour ñu mën cee wàññee soo ñëwee ci suratul isra tamit kadalika noonu la fa ñëwee borom subhanahu taala dinu wan ni maanaam ngir wàññi moo ko tax a jóg bokk na ci ñu mën a xam at yeeg weer yeeg yu demee noonu léegi dafa am lu ñuy tuddee al buruj xam ngeen jàngeen wasama zatil buruj nga xam ne jant yi jant beeg weer biddiw yi ñoo ko bokk buruj yi borom xam-xam dañu fukk lañ ak ñaar fukk lañ ak ñaar maanaam barj bu nekk jant bi dana fa def un mois bu duggee ci barj sàngam bu numéro un bi dafay def un mois génn dugg ca ba ca des def un mois ba mu des ba mat douze mu tombé fukki weer yi ak ñaar at mi daal di jeex gis nga weer bi tamit kadaalika moom noonu lay def waaye weer wee gën a yéex ab doxin parce que weer wi barj bu nekk borom xam-xam dafay def ñaari fan akus akus lëf moo tax moo ko gën a yeex gën gin ko gën a yeex nag mooy feeñ ci wasdaadu tisaan ji ndax boo ñëwee ci suurul qamariya bee mi ngi nekk trois cent soixante cinq jours bii trois cent cinquante quatre la ëppalante nañ ñaata ah onze ëppalante nañ onze jours trois cent soixante cinq mooy trois cent cinquante quatre ëppalante nañ onze jours kon at mi at mi ci boppam rek benn at bi nga jël rek suhuru shamsiya ëppale na suhurul qamariya onze jours at mi benn at mi soo defee téeméeri at da koy ëppalee soo da koy ëppalee ñetti at soo defee téeméeri at da koy ëppalee ñetti at bu ko defee boo defee ñetti téeméeri at mu ëppalee ko juróom-ñeent kon wasdaadu tisaan mi ngi noonu moo tax lii lii lii li li Mouhamad Bakar Ismaïl doon wax mu ni lii day wane ni maanaam ci yàlla rek la mën a bàyyi ko parce que yonent moom moom du calcul beneen bi ci des mooy différence bii am moom nit ñi xamuñu koon lu jiitu waññab jant bi jiitoo na weer wi nangam gis nga boo dee xool bu bu weer bi moom mi ngi nekk trois cent cinquante quatre jours moom lay nekk waaye moom huit heures de temps lay teg kon moo ëpp lu muy teg ci ay waxtu parce que bële cinq heures de temps lay teg teg quarante six minutes teg trente six secondes gis nga calcul bi borom xam-xam yi ngeen gis xatta fii Sénégal am na fi am na ñoo xam ne dañuy calcul maanaam gis nga calcul bi boo ko amee nga xam li muy teg ci ab heure li muy teg ci ay seconde boo ko xamee ci bis bi yow mën ngaa defar sa calendrier bopp yow li may wax nii man xam naan moom mënuma ko ndax lii du saag màcc waaye fii am nañu ko man maanaam boo xamee ni bis bi kat lii la ëpp ëppalee bis bi lii la ëpp ci ay su tegee nangam maanaam ci misaal pour mu gën a leer léegi bis bi at mi ci boppam at mi nga xamante ni moom mooy atum xamariya bi su fekkee ci xamariya la ñuy natt bu nekkee trois cent cinquante quatre jours dafay teg huit heures de temps teg quarante six minutes teg trente six secondes léegi borom xam-xam ñu ni boo xoolee weer bi dafay nekk vingt neuf jours xam ngeen loolu la nga xam ci suñu weer ñun vingt neuf jours ci lay doon léegi bis bi bu nekkee douze heures de temps da nga gis ni douze heures de temps yi da nga ciy teg quatre minutes ba pare teg ci trois secondes maanaam bis bi boo wàññee fi jant bi fenkee ba fi jant bi soxee bu ne boo amee douze heures de temps nga teg ci quatre minutes teg ci trois secondes bis bi jeex na calcul boobu boo ko fi defee ren ba déwén mën ngaa am ban bis lañ war a tabaski déwén da nga koy xam ban bis lañ war a tabaski déwén ndax loolu mi ngi aju ci jant bi te loolu moom bokkut ak suñu montre yi nga xam ne day yàqooka yu demee noonu su ko defee borom xam-xam ñu manazil yi nga xamante ni moom la weer bi dugg ka daanaka juróom fukk ak juróom ñett la di dugg ci bi manzila génn dugg ci beneen manzila génn dugg ci beneen manzila génn dugg ci beneen manzila ba muy ñaar fukk ak juróom-ñett mu xëy nëbbatu moo tax nga dégg ñu ne weer wi feeñut mu nëbbatu am nañu ne benn fan am nañu ñaari fan daal di feeñaat su ko defee suñu weer daal di foofu nag sew-sew bi ma gën a amal importance mooy masala mu jigéen ñi soxla mooy edda gis baax am doom kenn du ko natt ci weeru jant ñi ngi koy natt kenn du ko natt ci jant ñi ngi koy natt ci weer masala mu am solo ngoog dangay ko ne le premier le vingt neuf le vingt sept sa yoon nekku ci le vingt cinq yeeg vingt quatre ya xam nga sa problème fu mu nekk ci weeru bi nga xamante ni moom la ñuy natt pour xool weeru koor asuhurul qamariya yi nga xam ne ci la ñuy nattee pour xam weeru koor ci ngay natt yow pour xam edda edda borom xam-xam ñu ni ci lañ koy natt gis baax ca lañ koy natt am doom ak ëmb ca lañ koy natt moo tax est ce que da ngay dégg ñu naan neuf mois la jigéen di am doom gis nga neuf mois yi bu fekkente ni suurul xamar yi di nekk neuf mois dix mois la dem parce que bee ko ëppale parce que moo ëppale bu fekkee bële la dañ naan neuf mois la comme moom moo ëppale bii ay weer weer wu ne ëppal na ko neuf ëppale na ko onze jours kon da ngay gis ne ndaw si buñ wàññee fee ni am na neuf mois buñ ko wàññee ci suñu weer ñun weer wi nga xamante ni ci la ñu nat pour xool weeru koor day fekk ndaw si fukki weer la ëmb tollawul te beneen bi ci des mooy gis nga gis baax ni muy changé léeg-léeg mu ñëw ci tàmbali weer wi léeg-léeg mu ñëw ci mujjantalu weer wi léeg-léeg mu ñëw ca mu ñëw ay fan arrêté léeg-léeg ndaw si dootul xamati gis baax am fu mu tàmbalee borom xam-xam ñu ni amut fenn fukk nit ki mën a réglé fu dul ci weer wi nga xamante ni moom mooy wi ñuy sukkandiku muy ashuhurul qamariya waaye kenn du ko def ci shamsiya beneen sew sew bi ma ci seetluwaat mooy ndekete dafa mel ni boo seetloo borom bi subhanahu wa taala dafa programme su qamariya bi pour li aju suñu wàllu diine yëpp programme shamsiya pour li aju suñu wàllu àddina xamu ndax loolu seetlu ngeen comme déet gis nga soo demee ci baykat yi ñoom ci jant bi la ñuy natt pour mën a xam batañ sa fii lañ koy bayee supame fii lañ koy bayee su jant bi mel ne nangam nangam kenn du ko bay bis yi ci lañ koy wàññi gis nga calendrier at mi weer wi ci la ñuy fay yu demee noonu maanaam suñu mbiri àddina yëpp moo tax boo xoolee huwa alladi jaala alchamsa diyaan walqamara nuuran wa qaddarahu manazila li taalamu adada alsinina walxisaab beneen aaya ji nekk suratu nu mu tuddati isra moom dafa gën a fësal sax gën a leeral wane ni maanaam lii du firndeel li may wax mooy wane ni boo seetloo dafa mel ni xamar yooyu pour suñu wàllu diine la waaye shams yi pour suñu wàllu àddina la bis bi weer wi fayeeku ji leblente ci ci lañ baykat yi duggkat yi géej yi te xam ngeen ne bi jiw tamit ka dalika ndax soo demee suratul naxl suñu borom ne wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun gis nga ñërul bu sol ñoom dañuy xool gis biddiw sàngam fàq fii ñu xam fii mooy penk fii moo jëm nii fii moo jëm nale parce que wa alamatin am nay mandat bi na ci asamaan si ndax wa bin najmi ci biddiw yi hum yahtadun dañuy gindeeku foofu moo tax ilmul falak ñi nga xam ne ñoom seen xam-xam dafa màcc ci wàllu jant beeg weer wi dañuy indi xeeti xam-xam yu xóot yoo xam ne alquran jiitu na leen ci yàgg na moo tax kon wasdaadu tisaan différence bi lii mooy ko indi suhurul qamariya suhur shamsiya jiitoo na ko ci at mu ne ci at mu nekk jiitoo na ko onze jours onze yooyu boo ko multiplier da ngay gis ni kon téeméeri at yu nekk jiitoo na ko ñetti at ñetti at boo ko multiplier par trois dafay nekk neuf kon wasdaadu tisaan kon bee moo nekk ñetti téeméeri at bii nekk ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent moo tax seet sew sew boobu sunu borom mu ni wasdaadu tisaan am nañ juróom-ñeenti at yu ci yokk ci li nga xamante ni moom mooy xabar yi parce que ñoom ñoo ëppale shams yi parce que ñoom ñoo ëppale moo tax sunu borom mu ni qul waxal ni qulillaahu waxal ni yàlla subhanahu wa taala alam moo gën a xam bi ma labisu ca lañ fa sax lahu ñeel na ko xaybu samawaati wal ard kumpay asamaan ak suuf borom bi subhanahu wa taala ku xam kumpa la dara ump ko diir bañ fa am moom moo ko xam parce que neuf neuf ans yii mu ci dolli ña doon wax te di sukkandiku ci seen i téere wala ci seen i xam-xam wala ci seen i natt ndax buur ba fam nekkoon buur ba at na at yam doon dund xam nga mën nañ da koy calcul parce que mën nañ dem ba xam ni at sàngam la woon ñu calcul ko fi ñu toll ñu xam ne ñetti téeméeri at la waaye juróom-ñeenti yee ci yokk mu alxuraan a koy feeñal moo tax suñu borom mu ni absir bi ak ak kéemaane ak dégg ak gis wa asmi ak ak kéemtaane ak dégg wala ma ma asmaahu wa absara lan moo ko gën a kéemaane ak dégg moom suñu borom wala ak gis xam nga doomu aadama yi nag dañuy faral di juum boo nee gis wala nga ni dégg rek seen xel yi dem ci bët ak nopp fekk déedéet li nga nekk nit tey gis ñuy dégg ak a gis di gisee bët di déggee nopp moo tax waaye borom bi subhanahu wa taala dafa wax aaya joo xamante ni dafa dafa xereñe lool suñu borom dañu moom yàlla laysa ka mithlihi shay'un dara mel ni suñu borom nga ni mbaa mun la déedéet melul noonu nga ni mbaa dinaa nga mun la may la laysa ka mithlihi shay'un dara melul ni moom automatiquement da ngay dàq mboolem image boo doon séntu ni noonu la yàlla war a mel ba pare mu doog a huwa samiu albasir day dégg day gis xam nga tey buñ ñëwee dara melul ni moom nga ne xawuta kon mooy nga dara melul ni moom kay jeexal na wax ama kon sa xel amatul benn image bu mu koy jox kon bu nee la wa huwa samiu albasir wax dëgg yàlla nag sa xel waratul a dajaat dara moo tax wa huwa samiu albasir bu jiitoon laysa ka mithlihi shay'un du bokk ndax bu ñu leen day dégg day gis xel dafa gaaw te sob balaa ngay expliquer dana xalaat kon dégg ga nun mel mbaa du nopp la yore mbaa du bët la yore suñu borom ni laysa ka mithlihi shay dara melul ni moom ba nga dàq mboolem image yi am mu ne wa huwa samiu albasir day dégg day gis kon déggam ak gisam bokkut ak suñu gos xoolal suñu borom ca asamaan ca arash fawqa al arsh tiim jaam ñi qahara al ibad wa huwa al jabbar te amut lu koy umb lépp mi ngi koy gis lépp mu ngi koy gis gis nga jën yi na ci biir géej géej seen wallax wallax ya ca yabal ak ya ca yan lépp suñu borom mi ngi koy gis subhanahu wa taala dara umb gis nga ñun ñii suñu biir xol yi xoolal rek suñu sidit yi sidit yi deret ji fi muy daw ah lekk dana yaakaar ni par hasard lay demee yàlla moo koy defar de moo koy gis di ko def deret ji lii moo ci jël deret lii jël dem ci yàpp wa lii dem ci nangam lii war a yàqu génn ila axirihi lépp yàlla mi ngi koy gis wal undur ila sifati sama ahlu sunnati wal jamaa dañuy wax dafa am lu ñuy tuddi sifatu sama ak sifatu basar melokaanu gis ak melokaanu dégg borom bi subhanahu wa taala melokaanu gisam ak déggam amut lu mu nurul bul ni nopp la nag ndax saxalul boppam nopp waxut nopp li ak dégg rek la wax allahu akbar wa huwa samiu albasir wa huwa samiu alalim ndaw si daa dikk tiim nopp yonent bi di ko wax ma de sama jëkkër lekk na sama alal yàq na sama sama yàq na sama sama njureel yóbbu na samay doom mi ngi nii ba pare nee na ma su ma la nama tee tiim yàlla naa tiim sama yaay wax ju bonam jooju kii yi tuugiroo yi kooku li mu wax di déey ndànk Aïcha ne na maa ngi tëdd ci pooju yonent bi te dégguma li ndaw siy déey yonent bi salaa sallam yàlla moom naan qad samia allahu qawla allati mu ni subhaana alladi wasia samahu l aswaat Aïcha dafa tëb mu tiit mu ni tudd naa seen la ki nga xam ni ak déggam ëpp na dégg ñëpp ndax man mi ne ci pooju yonent bi dégguma li ndaw si wax suñu borom ne te juróom-ñaareel asamaanam qad sami allahu yàlla dégg na ko undur ila hada man nag bi ma gën a yéem mooy wa adanun min allahi ila annaasi yowma alxajj al akbar bis boo xam ni multi milliards yi doomi aadama ñooy daje wër kaaba ga wala taxaw arafa wala munan wala musdalifa la fa ne ci ay nationalité na mu bëree la fa ne ci ay làkk ni mu bëree soxla yeeg ni mu wuutee kenn ku ca nekk ma nga jafandu yàlla di wax lan war a wax suñu borom mi ngi dégg lépp di ko nangu allahu akbar wallahi mbokk yi lii kiimtaanu yàlla dëgg la ay milliards milliards nit daje ci benn barab te kenn ku ca nekk nag la ngay ñaan kii yaa ngi ñaan wér gi yaram parce que dafa feebar kii dafa bëgg a tukki kii njabootam gam bàyyi kii commerçant ba mu nekk kii moom iman la bëgg kee ngay jooy ndax dafa bëgg a mokkal quran kii ngay nanga te ñun lépp ci benn heure ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala wa yasmau jamia al aswat thumma yujibu li man yacha daal yëpp lay dégg mu seet ña ko sopp mu moom bu doon ñu ne boo taalee fii rajo nga taal fee dégg eh fayal bi boo pare kii de eh noppi mënumaa déggandoo ñaar maa jaala allahu li rajulin min qalbayni fii jawfi doomu aadama doye di dëgg waaye yàlla subhanahu wa taala moom benn heure xoolal ñun ñëpp ñu jullee doo fajar kenn ku ci nekk yaa ngi tàll sa di wax ak yàlla yow du yàlla du wax eh bàyyil ba kii ñaan ba pare kii doo ko ñaan déedéet ñoom ñëpp lañ waxandoo rek yasmau jamia al aswat maa tafan min al lugat wal xawaij wal xaajat aajo yi li muy wuute wuute làkk yi li muy wuute wuute lépp borom bi subhanahu wa taala mi ngi koy dégg moo tax gis nga doomu aadama gëm-gëm boobu bu ko amee gëm ni yàlla samiun basir wa anna allaha samiun basir kuy dégg la kuy gis la ak déggam dama ni xobu garab bi ni put wad te yow yaa ngi toog fii déggoo ko yàlla subhanahu wa taala xam na ko ma tasqutu min waraqatin illa yaalamuha wala xabbatin fi dulumaati al ard wala ratbin wala yaabisin illa fi kitaabin mubin lépp suñu garab yàlla gis na ko xoolal xorondam bi ñuulaayam bi tànkam yu sew yi jokkat jokkat ci kaw janj bi suñu borom gis na ko dama ni moom garab li na ci biiram lépp suñu borom gis na ko subhanahu wa taala kon absir bihi ak a kéemaane ak dégg ak gis wa asmia ak a kéemaane tamit ak dégg maa lahum ñeelu leen ñoom asxaabul kahfi ak ñeneen ñu dul ñoom min duni wali si yàlla min wali ci li ku leen di féetewoo wala yusriku deesut bokkaale mukk wareesu la bokkaale fii xukmihi ci àtteeg sunu borom ahadan kenn maanaam sunu borom kenn waru ko bokkaale kenn loolu lay jàngale laa fi aqdaarihi alkawniya wala fi aqdaarihi alsharciya kenn waru ci bokkaale yàlla subhana taala bu dee lu mu def loo xam ne ci kawnu bi la tëdd suppeeku kenn waru ko bokkaale ak sunu borom bu dee loo xam ne ci sharia la kenn waru ko bokkaale ak sunu borom kon defe naa mën nañ taxaw fa bàyyi aaya ji des ba bind bii di ñëw ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi